ci ponk xibaar yi suñu gan Babacar Justin Ndiaye la nekk taskatu xabaar waaye it sa xam-xam màcc ci wàllu euh, politique euh, référendum bi nga xamante ni ci la ñu mal 20 mars la daanaka yàggatul fan yu néew ci des noo jàngatee euh, campagne bi déjà stratégie ñaari camp yi ñiy far ak waaw ñiy far ak déedéet. d'abord dama kontaan ci lu deme ni référendum parce que référendum mu ngi bokk ci ce qu'on appelle en français les poumons de la démocratie. ci démocratie daf ci yi daf ci respirer bon nag kenn mënu lu lul rafetlu ko surtout que ñëpp ci sóobu ce qui veut dire que première victoire am na mooy la victoire contre le camp de l'abstention comme ñëpp a sóobu wéy sóobu na non sóobu na ce qui veut dire que abstention moom gagné nañ ko te en démocratie su nekkee éliminer nga abstention rek ce qui veut dire que bon suuxal nga démocratie ce qui veut dire que bon renforcer nga civisme donc ça c'est un premier motif de satisfaction léegi nag campagne bi am na tuuti ay yëngu-yëngu yu ci am. Mhm. ay paaka di ci génn ay jaasi di ci génn am na ñu wax sax bi wax waxi fetel bon loolu nag mënuñ du dul ñaawlu ko parce que euh, ñun Sénégal amuñ pétrole amuñ diamant. ñu ngi soog am pétrole mais exploité guñ ko am am na richesse yoo xam ne amuñ ko waaye nag am nañ ndam rayonnement di tubaab di rayonnement international dañu naw ci ni nga xam ne démocratie daf daf fi sax naw ñu ci politique bi nga xam ne dañ koy def te du ànd ak violence. alors naw ñi ci alternance yi nga xam ne su amee ba pare euh, dara du yëngu alternance bi day am ba pare nit ñi feet alors yooyu dafa doon yoo xam ne dañ ko war a sàmm parce que yooyu ay acquis ce qui veut dire que bon loolu rek mooy li nga xam ne moo xaw a ñuul ci sow mi mais su dul loolu encore une fois euh, démocratie kii al référendum moom c'est un temps de la démocratie c'est pas une élection mais c'est une procédure démocratique consultation populaire la bon nag am na euh, sa gis-gis également ci vote militaire yi ak paramilitaire yi gis nga vote bi li tàmbalee wote ñoom it taux de participation bi la ñuy la ñuy gisaat. man euh, bi Abdoulaye Wade di instituer le vote des militaires ci jamono jooju man j'étais contre le vote des militaires. am na des pays yoo xam ne les militaires votent am na des pays yoo xam ne les militaires ne votent pas mais comme loolu romb nañ ko léegi. lu tax nga euh, nekk contre vote. oui xam nga naa les pays de l'hémisphère sud suñu réew yi nga xam ne dëgëragul lool lool lool lool lool. yu demee ni pays africain yi ak Amérique du Sud yenn région monde bi man ñu bàyyi militaires yi teg leen ñuy def seen liggéey rek te duñ bokk ci langue politique bi bon bokkuñ sax ci langue politique mais le fait sax di exprimer opinion euh, man mosuma ci d'accord ma ci benn saafara bu ñu ci def parce que dama noonu su nekkee le vote militaire dafay déroulé wu comme le vote des civils li ci bon moo di danañ xam ne le bataillon blindé est contre le bataillon des parachutistes wéy la voté les commandos son contre loolu baaxul ci réew parce que si élection présidentielle am na les blindés ont voté non les parachutistes ont voté oui la marine a voté non xam nga loolu bon musiba la ñaaw na te danger la mais heureusement sax léegi la vote militaire il est secret kenn du xam ndax para yi fii lañ wote aviateurs yi fële lañ wote kenn du ko xam ce qui veut dire que bon defar nañ ko ba mu jekk mais mais pour revenir à votre question li ci ne moo di mhm. euh, taux de participation bi kowewul ndaxte xam nga ñun dañ am OPEX opération extérieure yu bëri yoo xam ne Sénégal daf ciy dem Sénégal ñi nga xam ne réew yi joxe troupe ci Nations Unies ci la gën a bokk soo leen doon lim bala ngay dem ci cinq six sept jot ci Sénégal ce qui veut dire que bon dañu am engagement extérieur wala ba tey ko aussi y la mobilité des corps xam nga Casamance léegi-léeg parachutiste yi dañuy dem. dellusiwaat Thiès commando yi dem dellusiwaat Thiès premier bâton dem dem dellusiwaat Dakar. donc mobilité boobu wane na moo tax voilà ñàkk jot gi ci la. mais nag am na leneen loo xam ne gis naa ko ci mu xaw maay tiital tuuti. xam nga déjà le taux de participation et faible c'est c'est un indicateur te réew day ami xarit ami noonu ce qui veut dire que jamono jii xam nañ ne y a pas assez de troubles à Dakar. jamono ji xam nañ ne y a pas assez de troubles lu tax ñu xam ko taux de participation bi lim faible day doon indicateur te loolu ça peut créer une vulnérabilité potentielle. mi ngi noonu muy côté sax insécurité. xaw nga ko ah, junj léegi ci la ñuy daal di àddu wax nag ci cong gi nga xamante ne nii amaloon nañ ko fële ca Grand Bassam ca Côte d'Ivoire ba fukki doomu aadama ak juróom-benn ñàkk ca seen bakkan consul général euh, bu Sénégal ba nekk foofee nag dalal na xel yi ndax nee na ca ñooñee faatu wàññeeguñu ci benn doomi euh, Sénégal moom nag di ngeen déglu ay ci suñu jotaayu xabaar muy nag Abdou Karim Bass nekk consul général bu Sénégal foofee ca Côte d'Ivoire Al-Qaïda cong googee ca Côte d'Ivoire ni ñu ko waxee Al-Qaïda bu Maghreb islamique nee na nag moom la daal na koy teg boppam maanaam jël yi fi gàlloo ko waaye nag ki ñu njort dëgg-dëgg ni moom moo nekk ca gannaaw mooy ki nga xamante ni moom mooy Moctar Bel Moctar Moctar Bel Moctar moomee sax nee nañu génnul ca cong yi nga xamante ne amaloon nañu ko ca Bamako ak Ouagadougou Chérif Dia moonu gën a xamleeg kii mooy nit ki ne moom moo nekk ci ginnaaw attentat yi amoon ca Grand Bessam ca Côte d'Ivoire la fa faatu ci doomu aadama ëpp ñaar fukk boole ci juróom benni terroriste moom mi ngi tudd Mactar Belmokhtar ñu koy dàkkantale Khaled Abdou Abass wante tamit le borgne ndax jafe-jafe bi mu am ci benn bët bi moom la jàpp ni moom mooy ennemi public numéro un ci gox bi di Afrique soo ak tamit ci Sahara bi ñu ko jàppee noonu mooy americain yi français y wante tamit réew nekk ci gox bi moom nag ay mbiram dafa doy waar ndax kenn xamul fan la nekk nan lay dundee ak tamit lan mooy ay ngànnaayam ak dooleem même branche libyenne bu état islamique ne woon na daaw ku ko gis danañ la fay xaalis bu bari moom yenn saa yi ñu ne ma nga Libye yenn saa yi ñu ne ma nga Niger wante ba léegi kenn tegu ko bët loolu terewut moom Mactar Bel Mokhtar wéy ba léegi di nekk ci ginnaaw attentat yi gën a doy waar ci Sahara occidental ñu mën cee cité ba amoon ca Ina Menas ca Algérie lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan Arlit ak Agadez ca Niger ñaar fukki doomu aadama ak ñeent Terrasse ca Bamako juróomi doomu aadama wante tamit Radisson Blu bu Bamako lu toll ci ñaar fukk ak ñaari doomu aadama ñàkkoon ci seen bakkan ci novembre 2015 moom moo nekkoon ci ginnaaw prise d'otage ca hôtel Splendide ca Ouagadougou ci toll ci fanweeri doomu aadama ñàkkoon ci seen bakkan attentat yooyu yëpp nag moom Mactar Bel Moctar moo koy revendiquer te tamit anam bi benn la day yabalab commando ñu dem ci hôtel wala tamit lieu bu symbolique fekk fa ay nasaraan gëmm seen bët di tiire yenn saa yi ñu jël ci ay otage balaa ñu leen di rey wala ñuy rey seen bopp laaj bi mooy fan mooy prochaine cible bu doomu aadama bi nga xamante ni moom leen gën a recherché ci désert saara bi ñi di la jaajëfal Chérif Dia wax nag ci cong googee ñu amaloon ca Côte d'Ivoire ni ki démb fukki doomu aadama ak juróom benn ñàkk ci seen bakkan di lim gu tapp Babacar Justin Ndiaye ndax song googu yow bett na la. Euh, avant ma wax ndax bett na ma d'abord damay signaler conjoncture bi nga xam ne ci la amee xam nga ñun réew mu mel ni Sénégal tey ñun ñu ngi ci élection. Mhm. maanaam ñu ngi ci référendum plus précisément Niger ñu ngi war dem deuxième tour ce qui veut dire qu'il y a une conjoncture euh, démocratique très vivante ci dans le Sahel alors jamono jooju nag lañ song mun nañoo wax ne c'est un coup de tonnerre dans un ciel électoral pour le Niger ak dans un ciel référendaire pour le Sénégal loolu lu mu wone wone na ne une démocratie am na solo mais une démocratie doit être armée démocratie baax na lool mais quand elle n'est pas en danger parce que contexte bi lii amee leçon boobu laa ci njëkk a tiré élection yi Niger ak référendum bi ne ci ñun su loolu passé euh, bettuma lool ndax te xam nga France dafa déclenché opération Serval euh, bi Serval pare mu teg ci barxaan ce qui veut dire que dafay gund xatal terroriste yi dans le nord Mali yemelewu ko foofu mu ngi ko yemalee mu ngi ko yóbbu ci Sahel yëpp parce que Serval c'était pour libérer le Nord Mali nag mu ngi commencé Atar dem ba Tibesti maanaam ba Fayalargeau ce qui veut dire que zone boobu yëpp France daf ci teg tànkam di xeex ak djihadistes yi. léegi-léegi sax dañuy monter ay opération jusque sur la passe de Salvador la passe de Salvador c'est une vallée boo xam ne bii elle fait la jonction entre les frontières du Niger du du de l'Algérie et de la Libye alors gund xatal boobu nag France di leen gund xatal léegi nag ñoom itam ñu mer te comme mënuñoo dal ci barxan ndax barxan dafa am doole lool am ay avion rafale am ay mirage am ay blindé mhm. alors léegi nag ñu ne comme France mooy chef écurie bi te ñun ñu ngi mu ngi ñuy sonal te peut-être jot ci France dana xaw a jafe léegi mbër mu bokk ci écurie bi rek ñu dal ci sa kaw comme Côte d'Ivoire nag ça fait partie de l'écurie française en Afrique de l'Ouest alors ñu dal ci kawam comme ni ñu dalee ci Burkina. Mhm. Mali nag guddeeg bëccëg ñu ngi dal ci kawam. alors écurie moom suñ la ca boolee à tort waa raison. fu ñu jaar dal ci sa kaw bon Sénégal nag sax moom. amul base militaire française comme avant parce que Wade jëlee woon na leen fi mais am nañ ce qu'on appelle les éléments français du Sénégal EFS. Côte d'Ivoire nag l'opération Licorne bi ñu ko démantelé dañ fa bàyyi benn reliquat à l'aéroport de Port-Boué ce qui veut dire que am na force française au en Côte d'Ivoire am na force française au Burkina des forces spéciales yu nekk ci boori aéroport am na force française au Niger Agadez ak Madama. alors am ñu ñëw dóor la. mais est-ce que service de renseignement yi maanaam seen seen seen. seen xarañte euh, mën nañ ko wax noonu parce que euh, tamit nekk na loo xamante ni tey bu ñu xoolee tey cong gi ñu cong Côte d'Ivoire ay euh, fan ci ginnaaw ñi ngi doon njortu lu ni mel parce que euh, d'après ay renseignements généraux am na mm-hmm. euh, ñu ngi doon njortu ni cong googu dana am est-ce que tey jii mën nañ wax ne service kii renseignements généraux yi seen liggéey def nañ ko na mu waree. laaj nga laaj bu am solo effectivement on ne pas parler de la faillite quand même des services de renseignement parce que arme bi nga xam ne moo gën a efficace contre le terrorisme dama koy wax toujours c'est le renseignement de qualité qui vient moom ak i blindé lu leen doo xeex ak lu dul soo jàkkaarloog ñoom gis leen ci suuf ngay xeex ak ñoom c'est un combat souterrain c'est pas un combat à ciel ouvert moo tax li nga wax dëgg la renseignement am na ci solo lool mais nag renseignement itam ah yu fi doomu aadama du yu fi yàlla bon nag y a des succès mais y a des xam naa nag aliyaa yi moo moo jur lii walbatiku aussi ñoom it dañ am pexe parce que bés boo ma laajee ñi ko def ci xam naa ñu ngi ci ñëw ci ngay xamee ne ñoom itam dañ am des capacités de camouflage. ci euh, la ñuy wax maanaam ndax dañuy seetlu ni souvent attaque bu amee. Mhm. ay organisation terroriste bari na ñuy taxaw di revendiquer attaque ku ci nekk naan man la euh, lii kan la ñuy ni par exemple ni moom moo ko war a def parce que bu ñu xoolee euh, cong gi rek Al-Qaïda au Maghreb islamique nee na moom la am na ñeneen si ñoo xamante ne sax xam naa ni du ñàkk dinañ taxawaat revendiquer attaque bi li ñuy faral di seetlu saa demee ñan nga njort ni ñoom ñoo ne ci ginnaaw noonu nga koy waxee nag noonu lay demee parce que muy bu Mali bi muy bu Ouagadougou bi muy bu Grand Bassam bi effectivement ñëpp a koy revendiquer man li ma xam ci nord Mali nga xam ne mooy centre du terrorisme foofu la fa nekk galaxie la galaxie nag constellation la ña fa ne dañ bëri parce que mi ci boppam sax bi ñu koy laata créer mu ngi bokkoon ci. GSPC groupe salafiste pour la prédication et le combat moom ci boppam sax ci GIA yi la jóge GIA yi jóge ci fils algérien bi d'ailleurs kii Mokhtar benn moctar moom ci boppam algérien d'origine la alors ce qui veut dire que ak mi mooy lan mooy nu mu tuddati Al-Qaïda au Maghreb islamique ak mi Al-Qaïda au Maghreb islamique bon Algérie la jóge wala ko mu def allégeance ak mi bokk foofu mais moom ci boppam sax dafa am ay morceaux yu ci jóge dafa toj ndax musée wu ci foofu la jóge mais moom moomu xeex ko dana yomb parce que tey mën nañ jàpp ni il fait partie quand ci terroriste yoo xamante ni ñoom lañuy gën di wër muy Mactar Bel Mactar menace la mën nañ ko man man li ma gëm sax euh, madame moo di dafa am sous-traitance. parce que xam nga Côte d'Ivoire bokkul ci euh, Sahel. te Grand Bassam bi ñu bi ñu attaqué amul musulman xam nga su nekkoon dañu attaqué ay Bouaké mbaa ñu attaqué ay Korogo le pays Jula mun naa xalaat sax ne euh, dafa xaw a jege Mali moo tax mais lii ma gis opération boo xam ne bii dafa tëb Côte d'Ivoire dem attaqué ji Grand Bassam Grand Bassam soriwul Abidjan donc c' est le sud de la Côte d'Ivoire la mer dafa am place bu réer réer ensuite c' la première capitale de la Côte d'Ivoire avant Abidjan donc c' ñëpp sous-traitance même su nekkee Moctar Ben Moctar moo ko def man njort bi ma am moo di. te ñu ngi doon wax ne dee na aussi. waaw Tchadien waxoon nañ rey nañ ko mais wane ne euh, finalement service de renseignement occidentaux yi localisé nañ ko deewul algériens yi aussi localisé nañ ko deewul le DRS algérien localisé na ko deewul bon gannaaw bi daan nañ ko gis boori Libye ak dans la passe de Salvador boobu ma lay wax mos nañ ko fay repérer alors ce qui veut dire que man li ma gëm mooy sous-traitance. parce que am na la front de libération du a boo xam ne ay pël ñoo ko monté Amadou Koufa ci Mali dans la boucle du Niger te ñooñu ils son liés à Ansardine Ansardine moom ci boppam mu ngi jóge ci ak mi alors finalement foofu dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ne doo xam kan moo def ak kan moo deful walbatiku ñoom léegi-léegi dañu utiliser noir parce que soo demee au nord Mali am na communauté bu ñuy wax les Bella sociologiquement culturellement historiquement ils sont rattachés aux Touaregs c'est comme ku deme ni musaa Moussa Diéry Maïga xam nga Moussa may Maïga c'est le numéro 2 du MNLA. pourtant noir la comme man. alors léegi-léeg dañuy utiliser nag les Bellas du normali pour opération yu mel nii comme ça day am couleur locale man ba ba may gis euh, ñii dee Côte d'Ivoire xam nga ba léegi. Eh, Ouattara exhibé wul corps yi gisaguñ seen corps mais wër na ma ne ay noir ñu ngi ci noir yooyu nag dañ leen di utiliser pour faire couleur local euh, léegi lu ñu seetlu également nouvelle cible bi parce que euh, ay hôtel rek la ñuy faral di song nan lañ mën a jàngatee noonu lu waral hôtel yi. waaw xam nga hôtel yi fala tubaab yi nga xam ne dañoo ñëw ci réew en transit nga xam ne dëkkuñ fa. kilifa tubaab yi fay jaar investisseurs yi fay jaar diplomate yi fay jaar ay ak ay plage bon nag comme ni ma la ko waxee rek ñoom France la ñuy xeexal. comme France nag dafa am doole boo xam ne dal ci koom yombul lool léegi nag léegi écurie bi yëpp la ñuy song ñuy dem ci mbër yu ndaw yi mais France ci boppam moom la ñuy xeexal te France itam dafa def lu parce que ce qu'on appelle un coup de pied dans la fourmilière maanaam dafa dem ba noor ki daal ca kaw daal montagne bi nga xam ne ñoom fa la ñu amoon seen base seen citadelle seen bastion moom la France dem toj ko alors jànj nag soo ko tojee melentaan yi dañoo dem côté bu ne. alors léegi nag c'est ce qui explique les attaques tout azimut. lan nga njort mooy seen seen cible prochaine cible fan nga njort ni euh, noppi nañu ngir. bëgg fa euh, songaat bon suñ xoolee écurie yi. Mm. daanaka dal nañ ci euh, Burkina dal nañ ci Côte d'Ivoire bon Sénégal nee naa la moom itam abrité na élément français. militaire bon nag ce qui veut dire que moom itam xam naa war nay euh, góorgóorlu. jéem a kon mën nañu wax ne benn réew fi mu ne nii muccul ci ci ci ci terrorisme nan la réew yi war a def euh, vraiment lan mooy xeex bi tey stratégie bi lan la. lan mooy gàllaaj gi. gàllaaj bi waaw gàllaaj gi dans l'absolu amul mais am na ñoo xam ne am nañ seen gàllaaj gis nga Mauritanie. barki démb américains yi accusé nañ ko ñoom ils ont pactisé avec AQMI dañ signé accord secret bu mu ko attaqué Blaise Compaoré temps yi mu nekkee Burkina na accord secret Mauritanie nag weddi na may man gëm naa ko parce que ñi nga xam ne ñoo yore le renseignement mauritanien le général Ould Maguette le directeur de la sécurité nationale ak le colonel Brahim Ould Salem euh, renseignement militaire ñooñu c'est presque des amis bon amis c'est trop dire mauritanien lañ mais euh, c'est le renseignement mauritanien mais c'est des partenaires de AQMI. très rapidement waxtu bi xoj nañu Sénégal fii lan lañ war a renforcer très rapidement pour ah. que vraiment parce que c'est une menace quand daal ñaar moo mun am. Mhm. renforcer wu. ou bien comme def ko Mauritanie ak Burkina Faso du temps de Blaise nga pactiser avec AQMI ngeen signé accord secret du dal ci sa kaw mais man ni ma xamee Macky Sall gaw ma mu signé accord secret ak AQMI defe naa day fàggandiku defaru. ñu di ko jaajëfal bu baax Babacar Justin Ndiaye nekk taskatu xabaar waaye it xam-xamam màcc euh, ci wàllu euh, politique euh, ñu.